vite fait ñu ràññee ko ci crème boo xam ni kat maanaam boo ko defee sa yaram yooyu duñ la laal ràññee ko ci cuuraay boo xam ni day dàq yooyu ràññee ko it ci ñaari insecticide yoo xam ni fu ñu gis ay gunóor ak mbóot rey ko ràññee ko it ci puudaru mbóot boo xam ni suy mu ne ngalañ waaye it ñu daal di am pat dentifrice am boos kon laa gaam vite fait moo leen di may waa ju kale baax du jug mu ku di am ay problème ku nekk ak sa façon de attitude foog naan di dil bi si noo doo dem sëriñ bi tekkatu di la bëgg a dee bu ñu waxee mu naan yorul dépense yëkkati ay 1500 di ma ko jox parce que li muy fayeeku laa xamul fan la nekk lu muy fayeeku ci kër gi loolu laa xamul fan la koy dugal kii am na lu may nëbb waaye kenn def ko man maa ko def fekk koo xamante ne mi ngi waajal dee ci kanam bi nga xam ne moo ko laalee sama yaram bi yëpp rouge ma dugg ci moom kenn tooñ ma man maa tooñ sama bopp dama son ci sëy bi wóor na yàlla ba duma ci wax bu bëri ba tabax si bu kii li ma bëgg bu ko def bu soobee yàlla dina ma may sama baat wala ma dem sama yoon duma ci sax foo j'en ai ras ci kii tànkam yu amul ndox kon xaw lu ma. soxna waaye jéegam de xëy na sa diggante ak sa borom kër sama yoon newu mais nopp moo amul kubéer te góor bu ne bu sañoon bala mooy xëy dépasse nekk si këram te bu doon sogam. jamono mooy gën yaa ngi wax te xamoo kii kii dafa ñàkk fulla ñàkk fayda kii amul lu muy jomb amul lu muy rus. kii moo ñàkk fulla ci boppam. waaw dëgg la kenn waxanteeg sa borom kër nii. xana bu nga am ay njaboot yu barke bu bëgg am barke du ma xëy ni borom këram da nga koy muñal rek yàlla baax na moo gën mais wëru ma xam am jàpp si yokk si dépense ay yow déedéet yow tamit yokk si rek yow tamit ni tam sa jaay bi dafa mel garaaw yokk si rek ay yow garaaw jégal naa la yokk si yow tamit nag sama jigéen yow jërëjëf faay li bëri na de ay yow da nga xool da ngay wax da nga xool na da ngay waxante moom bëgg am ay doom yu barke dégg nga maa ngi xëy nag man dima gëna bañ moy kuma fossé rendez-vous 9 heures nga ma waxone té instant bi ni paré na ba ma ngi taxo ok c'est bon eh Diallo eh, eh Jamba nag pardon pardon d'accord c'est bon tu te rappelles tu te rappelles eh ba nga nag mu. naa yas nga xam ne ci affaire quoi. mais grand vecteur bu baax nga nii. alors pad bi efficace comme c'est pas possible. alors que ñëpp a ko wax. moom laay utiliser. Ah. moom laay wutal sama gars yëpp quoi. Ah, ok mais quand même nice quoi. Ah, mais on pompe bi. pompe bi nag dafay jeex bu ñëwee rek day jeex non parce que man sama bopp dama bëgg defal don équipe nationale. chaque année dama leen doon euh, euh, offrir ay maillot mais cette fois ci dama leen bëgg dafa pompe parce que baax na ay douleurs musculaires. booy bu defalee ay massage ah, seen cuisse yeeg tout ça xam nga. Ah. moo tax euh, ma bëggoon xam est-ce que naa am commande boobu ko waaw ah, loolu am benn problème bu ma demee nii naa la woon waaye incha jàpp si léegi man bàyyi ma jël bàyyi ma jël ñaar ma jël ñaar yi. <laughs> mais dara jàppal de day baax de yow yow nante nga yow moom nante nga ko waa jàpp. waaw wecc bi. ñoo faral woon sax <laughs> euh, euh, ci commande non parce que dama gis que je vois que tu es da nga nekk benn jeune bu dynamique. bu am jom bëgg liggéey. te non c'est pas du tout évident. waaw te man yu bare man maa ngi jóg fii di voyager. wala xool bu lay intéressé la rek après ñu xool lu ci tegee parce que yow vraiment bëgg naa la jàppale. Diallo wax dëgg yàlla kontaan naa trop sa wax rafet na trop mais moom wax dëgg yàlla moo toog liggéey sama réew moom ëppoon solo bay dem di voyager nii te da ngay xalaat lu ma voyager nii. lii rek laa fay jaay aw ma fa kenn xaw ma fa kenn damay mujj di fanaan si mbedd di toltalaan dama toog sama dëkk di gis sama njaboot wala di dégg sama njaboot def naa moom. non mais réew yi da ngay demoon Suisse quoi. fii baax na fukki dërëmu fii moo ma gënal junne fu ne wax dëgg yàlla moom. te damay wax benn affaire bu jeune fi yëpp demee fii suñu réew kan moo fiy dem kan moo fi tabax am na sax benn garab ba nga xamante ni bu mu demee yàgg na te këram boobu ba léegi man maa fiy joxe dépense te si vite fait bii laa ko amee kon nag bàyyi ma toog sama réew rek. wax dëgg yàlla maa ngi jégalu. walaay baax na genre yu booy yi seen xel a gàllem locataire ak leen di wane maa a muus yërëm leen dëkkandoo yi coow guddi coow bëccëg ay waay ay waay ay waay yow réew mi li ngay def seet ci yàlla seet ci yàlla tëjal tëjal tëjal man yàqum ndox mi laa xamul lan la daamante dakk dee leen yaxanal dee leen yaxanal ndox mi te ba yàq mi xoolal satala gi ne sa weer nga bàyyi fa satala tëjib robinet mu naan yool yool yool yool yool yool nga ne da ngay jàpp yow loola jàpp yomb na yow xanaa boo tisoolee sax raay ci say loxo jàpp nga ngay chaque jour ndox yàqu ndox ay waay da leen ma ngir yàlla di leen ndox robinet bi ngay tëjji démb ci guddi nii nga defoon jàpp ba pare bàyyi robinet bi muy yool yool yi kër gi yëpp tooy xepp loolu pour lan économiser aider les pères de famille et les mères de famille économiser yàqanal lii pour lan jógal. baax yaa ngi may bëgg fichier ba. eh kon fichier dama doon bëgg fichier léegi fichier fichier. kër gi nga xam doo fi mën ab jàmm mukk. may ma jàmm. toxal fële. moom mooy yàlla kenn mënu ko. waaw mooy saf mbuusu sump nga may saf mbuusum sump. xool ko mooy yolos yolos yi mel ni xar mu nàmpul man dama laa faale man ngay. ñoom dañuy tëj robinet bu bàyyi ko fii tooy xëpp xëpp xëpp xëpp te loolu day day seeral facture té man dama daan fay facture ay 450 ay 750 légui 25000 mille francs ah. waaleykum salaam. ah kilifa gi. waaw. joo bi tojul de wallahi dama ay tour de famille fani sama euh, mbokk bi fi lañu sangé sen domi doom yi di fi fóot seeni laytaay dus ba feulé ah Dama waxa waxa waxa waxa wax bay bëgg dé dafa dafa yémi li rafetul ta bo waxé ñu ñu la hein dëkk daa war jeex fleur yi xana do koy arroser ah kay fleur yi bëgg ndox man dal suma soñon soñoon madame fleur yi nga buddi ko jëmbat fi ñam bi mooy tane ndax ñam bi bëggul ndox mais fleur yi dama roose roose roose roose ba dangay Sewa daal amul njariñ pataas ak ñam bi tane. kër gi <laughs> bañ c'est wa dama la ñëwoon pour jox la location bi location bi. la la la eh, eh, location. usine bi fayagul usine bi fayagul le cinq lay fay <laughs> le cinq lay fay kaw moom bëgg xaalis. usine bi le cinq lay fay. <laughs> kon moo bàyyi ko noonu. ah moo bàyyi ko noonu boo le cinq. waaw usine bi ma ngay fay le cinq. waaw mooy fay le cinq occasion. <laughs> ça va madame. su waaye les les deux bienvenue. ko ak tissu yu bari mu mel ni soti ba soxna si moom dafa mau génnoon dafa génnoon léegi wallaay dafa génnoon maa ngi lay sant nag di la gërëm waaw waaw dinañ gën a topp topp dëgg yàlla dinañ gën a defar moom dinañ gën a dinañ gën a defar waaw dinañ gën a defar moom bu soob yàlla maaleykum salaam maa ngi dem waaw waaw takkal weer bala nga mbëkk ndaw si bët beti baaxul takkal weer kii mooy menee buru fii ci usine chocolat moo tax chocolat rek lay sol waaw ñëpp ci famille bi lañ bokk kër gi rus naa ko luyee rus naa héberger naa koo abale wax dëgg yàlla ndax damaa ji ngoro ji xam naa loolu xam xam na eh, waaw baax yow kii sa baax baaxu bàyyi nga naan baax baax nga dañoo reew ba dof mooy kii la mooy entraîneur équipe nationale bu basket ku njooloon la na ndeysaan ku njooloon waaye pañe yi mbëkk moo ko wàcc nii moom yor équipe nationale bu basket bi nii waaw instant yi nag kare yi lañ ko jox comme daa gàtt ni ñu jox kare yi waaw wallaay ñun ñëpp ci famille bi lañ bokk man équipe nationale karateka yeeg pël yeeg ñëpp samay mbokk lañ famille bi dana jaxasoo de des na portugais yi ñëwaguñu ah. yée sama baay am mbokk portugais portugais ak ŋaaño ñoo ko bari la yow sunu famille xayal damay bañ a wax rek yow ya, après naa expliqué. ndeysaan ah kon bàyyi beneen yoon ya? bu ma ñëwee. waaw. ma dugg nga eh, présenté. d' accord d' accord madame. li nga wax yëpp gëm naa. d' accord jërëjëf moom dama laa wóor. walaay dëgg la. dama laa wóor dama laa fonk. dëgg la loolu am na. kon baax na doo fa am lu naqari. maa ngi ñëw de doo fa am lu naqari. ñu yendoog jàmm ñu yendoog jàmm madame. waaye gën a bàyyi xel bye bye waaw bye yàqum ndox moom dina dakk moom. sama baax na jëndal ma ko paquet caleçon rek jërëjëf ay waay ak baax moom de série ci caleçon rek la ci xam ne <laughs> ko rek la ASC bi yóbbul ko enveloppe ci suñu final bi pare nee ko ay paquet caleçon la may ASC bi <laughs> waaju baax ngi ràññee ko ci crème boo xam ni kat maanaam boo ko defee sa yaram yooyu duñu la laal ràññee ko ci cuuraay boo xam ni day dàq yooyu ràññee ko it ci ñaari insecticide yoo xam ni fu ñu gis ay gunóor ak mbóot rey ko ràññee ko ci puudaru mbóot boo xam ni suy mu ne ngalañ waaye it ñu daal di am pâte dentifrice am brosse kon laa gaam vite fait moo leen di may waaju baax